cheroon na dawlin bi macha allah marché bi moom boo demee moom ndugg sax doo ko laal rawatina ak tabaski bi nii bu dee wàññi nañ ko nag moom sant yàlla la. ndax ñun mère de famille ñu ñoo dëkk ci marché bi ñu dëkk ci mbedd bi xam nañ li xew ci biir dëkk bi ñu ko wàññilee loolu tam suñu arrangement lay doon ndax ñun loolu dañoo sonn ndax góor day xëy dem ñu ñooy des ci biir kër gi instant yi ceeb bi seer na soo waroon sóor ñaari kilo dangay sóor kilo liibar ndekki rek frère añ soog a ñëw moo tax kër yu bari léegi ñaari repas te bu njëkk ba ñetti repas lañ daan def añ reer ndekki mais les kër yu bari léegi ñaari repas la ñuy def. ndax boo dee xool da ngay liggéey sax parfois ba weer bi dee mais boo xoolee li ngay gagné ci sa boo calculé bénéfice bi ngay am du ko mën. li ngay jënd ceeb fi nga koy mën a amee bu sa dooma sa doom feebaree li nga koy faje fi nga koy mën a amee léegi bu fekkee yow mënoo jaay loo xam ne mën naa fay place bi ak sa kër bi nga luyee waxaguñu sa lekk sa sa dundu kër kon problème am nag xam nga. ñun daal ñoom kontaan nañ ci Diomaye ak euh, Sonko koo wàññul luyaas wàññul ko dund rek lépp day baax si moom waaw mu mën a fay école xale yeeg yooyu yëpp dëkk bi dafa metti ceeb ak diwlin kooku moom ku ko wax ak ku ko waxul ñëpp la sonal. dina dimbali njaboot yu bare bare bare bare ndax njaboot yu bare bare bare bu ñu tàngalee bu ñu toggee añ daana la tàngal reer kon bu ñu wàññee lool rek daanaka li ëpp doole ci euh, ndimbal bi daanaka ñëw na.